mbokku internetu Dakar Midi nee naa la li leen demee saa su ne ah, am mbégte ak kontaante tey a am Midi ñu ngi am ñuy siifu ak salaam Jules maa nuyu ah, si la màggal waaw. tey ñu ñëw ci li nga xamante ne tey mooy Ama Baldé Modou Lo combat royal combat boobu àdduna ko soxla Jules Baldé tey ñoo gisee combat boobu. ah bi ñu toll combat bi dañuy signature ba pare ba ñu signature ba pare après doo ñu xam ñu après doo lay nekkee. Mhm. tey noo leen waajalee Ama Baldé. waaw ni nga waajal signature rek. waaw signature bu neex ama si fa supporter nekk kontaan. Mhm. waaw Ama am benn gëm-gëm. li mu gëm ci diggante ak Modou Lo nee ma daat Modou Lo ni ma lee su ma su ma su ma sama deetee dugg ajam su ma lee ma deetee waaw loolu mooy nit mooy champion nit dëgg dëgg da ngay am looy teg sa bët loo xam ne sa yaa ko sa bopp. Mhm. loolu loolu loolu da si ànd moom nit day gëm boppam. Mhm. waaw góor da ngay gëm sa bopp. Mhm. ki nga xamante ne mooy Modou Lo miin Pikine yëpp mburu Pikine tey Ama Balde muy day Ama Balde tey tey lan ngeen di conseillé tey ci Ama Balde ci diggante Modou Lo beneen chose mooy Modou mbër bu mu bëgg a xëpp dara dina la ko xëpp ci diggante ak Ama Baldé bu ñëwee ba foofu nu muy demee. waaw ah, Modou Lo ku mu bëgg xëpp da koy xëpp waaye nag Amadou Amadou mbër boo xam da nga koy xëpp galaaj. Hmm. mu ko xëpp boppam bu ko xëpp duñu xool sax mu xëpp ama galaaj duñ ko xalaatuñu ko sax. Hmm. waaw la xalaat moom. Hmm. na boppam da am kenn du ko sotti galaaj. ku ko sotti galaaj da ngay rey jàll pare ko sotti galaaj. waaw. dëgg la ñu bëri woon terrain église. Modou daanoon ko Ama tey nee na ko maa ngi naa ne dina am ndam ca kaw. waaw aller retour la comme aller bi moo ko gañu retour ama gañe ko ndax loolu rek la waaw tey ñoom ñaar xam naa ne mën nañu te ñu soog a toog plateau pour gisante ñoom ñaar face a face Ama Baldé ñu bari wax ci mbirum côté bi mu yor ku poids bi lay maintenir ba bisu combat ba wala poids da ko yor ni pour à la forme non signature bokk bokkagul ak ak simmeeku si làmb jee bëre de signature la ñuy wax loolu ay waxante la. Mhm. waaw te lu wax waxan signature moom ku ko rate moom. Mhm. am am nga problème bu kenn rate ñooñu ñëpp taal seen télé ñu mën a dem dem a taal seen télé toog seetaan seen TV. Mhm. oh dina tàng dina neex. waaw ama rek. non non. te lan ngay wax ci ki nga xamante mooy tëgg combat bi tey ah ubbil bi yëpp presse bi journaliste pour ñëw liggéey ci làmb ji. waaw li nga xam ne promoteur bu mag la promoteur bu mag da xam li nga war a def. waaw li muy def nii daw loolu mooy normal mm-hmm. te ji ñëpp ñëw mm-hmm. journaliste yëpp ñëw journaliste bu journaliste amul dara du dara du kan du de mm-hmm. waaw waaw journaliste yi nag il faut ñu leen jox leen seen seen seen wattuwaay wala seen seen loo xam ne ñoo ko moom ñu filmer defar lépp après mu neexam ah. mooy yoon léegi la tey lan ngay tàggatoo ak ñi nga xamante ne tey mooy fan si Ama Baldé ak ñi ak mooy waa Pikine waaw ñu nuy waa Pikine Pikine ba Kër Massar suñ supporter nekk parcelle ñu nekk yoof nekk Ndaayaan nekk si àdduna bi waa mhm. Guinée Bissau waa Golleere mhm. waa Pawunka mhm. Sinjang Ousmane Pirada Ñannaawo Guerrero Bokar fi bu ñu limee sa waa Vélingara waa Koupantou Sarioba fi mu bu ñu <laughs> <laughs> <laughs> limee sax dañuy xam naa dañuy am nañu ñuy tëbb kenn mer. en tout cas c'est ñun monde entier. ñëpp. waaw